leen leen gis mooy yaa ngi am xaalis saraxeen piis bu bees wala tàndarma daa jot daamar moo xam kër gu ñu étage wala bagage suñu teg ci place gudd fan liggéey bu toj ki ko teg daa am man asalaamaaleykum asalaamaaleykum sëriñ bi yaa man fii lay ma dee benn mara bu nekk fii. mara. benn mara bu neexa fii man dama war a dem New York City. yaa dama war a signé foofu basket damay def foofu basket. ok Gambie leen ma fekk may basket foofu. yaa kaana bi américain bi moo ma jël moo war a dem foofu doon basket foofu dañoo war a dem signé man xamuma yi mais suma suma ndóo bi suma caapa bi da ngay dem sénégalais nga gis leen ñoom am na lu leen di defal xam nga après mais man gawuma yooyu sax mais man suma ginnaaw bi xam man yàlla laa gëm quoi mais après si la ma expliqué man ñëw man na ñëw ci yow quoi suma ndoo bi moo may indi fi pour nga defaral ma bu ma demee dama dee signé. yow basket nga war a rappeur. yeah man ah. dama dee basket basket. taf taf taf. da ngaa di sànni six points ay huit points. NBA. yeah. ok. léegi yow da bëgg ma defal ay ñaan. oh oh après nga mën a signé. Eh, tënkal tënkal. ok ok léegi xam nga ñuy def man tegtal yu ma lay def soo ko defee bu soobu yàlla bu demee NBA premier test da ngay jàll. no problème. Mhm. Eh, mun nga koo def. yeah eh, good good. attan nga ko. yeah. xam nga nooy def wutal euh, kilo pepp ah. kilo suukar. Mhm. Mhm. ak kilo ceeb ah ak kilo vermicelle nga boole ko ak macaroni comprendre nga nga togg ko boo ko toggee avion bi nga war a dugg pour dem toggal euh, nga def ko ay ndap nga sarax ko waa avion bi ci kaw ah, emprunté bi nga jox ko nga jox ko euh, benn palaat ak kii encaissé passé ak yooyu noonu. ok ñaareel bi mooy xam nga wut. da ngay wut ay liiru yamb xam nga ko yamb mooy yi naaw liir yi wut ay liiru yamb li liir yu tooy xëpp boo demee nga yóbbaale ko bu duggee ba ci avion bi nga bàyyi yamb yi mu tas biir avion bi boo ko defee incha allah rabbi ok boo demee di nga. boo demee man suma bi ndoo bi. xam na man gëmul yooyu. Hmm. man af afta may départ nee naa ko sëriñu sénégalais bu ndaw bi da dee wax lu xamul. parce que man yow li ma dee wax nii ay apparentage yooyu amul. Mhm. man suma xaalis xen du ko noonu. Mhm. yee man yàlla laa gëm. xam man ay yi ma dee wax nii man mosuma ko dégg mhm. Fall. yow rapport nga voilà amuloo dara. voilà dee nekk Sénégal fii di nax nit ñi man eh man kaana laa yee dama dee basket. yooyu basket yow dama dee sànni huit point Gambie. huit point ngay sànni huit point Gambie nga ñëw Sénégal. <laughs> yow afta ngay comparaan. dinaa yebal suma booy fii yow dina la defaral nga dee neex Sénégalais yi fii. yow yow yaay bëgg a def NBA yow mii sa taatu yoo la mii yow boo saan boo saanee cinq points doxot lii yow da waa NBA yow wóor na yàlla bis boo demee NBA yow paña bi moom xam naa boo yéeg ba saan moom day ngay def sa taatu yoo la nga ne nga mel ne ko yàq sa tubaab ji nii yow xam nga NBA waaye Kër Massar dox. <laughs> <laughs>